tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bu nu sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq تي بالو حق نيب يلا نانو يلا بولي جيغل دي گنا فاتلي سونو بوب دي فاتلي مبولم كو خامني كي بو نيكو فاتلي مو فاتليكو نو گنا فاب سونو تانك سونو واخ اك سونو جيف اك سونو باس باس گن كو تانك تنك تي تقوى الله تقوى الله كات موم لا غايو باخي ديفون اب يوبل نالنكو سونو بروم سبحانه وتعالى سنتو سنتوون وتزودوا فان خير زاد التقوى مو واخني كو ام تقوى الله بو ياغي با ياغ يالا دانكو خمال تكو يالا خمال دوتو فاتي واتقوا الله ويعلمكم الله لولا لنجي دالي ديغ موي كون نيت كي اموت شي ادونا جوتو lu dul wëri fu lu baax nekk bu demee ba ko fa fekkee ak bu ko fa fekkut yëpp yéeneem rafetoon na su ko fa fekkee jariñu na su ko fa fekkut it jariñu na ndax xam na ne foofa njariñ nekku fa mu wuti fanaan tomb bi dañ koy tënk lenn ci li mbokk mi doon fàttali léegi muy majalis majalis am na ñaari xaaj ëpp na ko dañ ci tànn benn rek tey am na lu ñu tuddee majalis wala majlis te fekk ña ngi cay jublu koo xam ne mbooloo ma dañ koy wër ku ne yor ab téere mu di leen tëralal mu ci gënoon a siiw ñu naan léegi mu ngi jàng majlis wala ma ngay jàng ca majlis ba du fii rek ñoo ko am yaatu na waaye bokk yi am na yeneen wala beneen boo xam ne tuddeetuñ ko majlis waaye xadara rek lañ ko tudde mu gën a yaatu nag ndax xadara pays ku ne dana fa yóbbu lu nekk ku ne dana fa dem lu ne dem fa bu fekkee bi ma dikk wax la nag muy majlis boo xam ne dañuy wër ka fa nekk tax faa ñëw ñépp kum tëralal jàll ci keneen léeg-léeg mu boole ñaar ba ñett benn téere tëralalu loolu leen ko seet keneen ci raw mu toppal leen ko loolu bëreetut ci ñi ñuy fekk de rawati nag nekk ca nekk ca ba bu waxtu julli jotee mu ne fojjat jiite mbooloo ma delluwaat ca lam nekkoon loolu bëreetut kon nit ñi nañ seet bu baax a baax a baax seeni majaalis fa ñuy dem ak ña ñuy toogal gannaaw soppiku na tudd xadara léegi mooy pays man sax xadara ba ma ko daan dégg ca mag ña pays suñu borom ba lañ ko tudde woon waaye am na ñu ko sàcc li muy xereñ xereñ am na ñu ko sàcc tudde ko xadara ñoom itam ñu fay dajale ku nekk ak ñu nekk ak lu nekk diina nag waaraate la ak yeete ki neex a waar nag mooy kuñ ni yeebam na jar la mag waxoon ne kañ ñu booleeloon daf ñoo jàngal bañ ñu na ar mu yër mu yar na bañ na nër dolli nañ ca nag boo xam ne mën naa ànd ak ñoom ku jàng ba ne ar yaru ba ne nër faw mu yeewu ba ne jar ku yeewu nag moo neex a waar ndax dana am loolu du sañ dana xàmme lu muy ragal ak lu muy xeemeem ragal mbugalum suñu borom ëllëg ak xeemeem payuk suñu borom googu ëllëg suñu borom nag àdduna ci majalis yooyu wala majlis ba nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ak li gëm yàlla di àndal lépp bu ngeen fa dematee ci ab majlis bu leen fa yóbbaale ak rëy bu leen fa yóbbaale xel mu gàtt bu leen fa yóbbaale it ka ngeen fay fekk fu mu leen joxoñ rek ngeen jëm fa déedéet waaye nag jox leen cër ña ngeen fa dajeel ba buñ ne la sëñ bi toppal ne tuuti bu ca teg baax buñ ne te nga jóg deme ne doonte ne nga ne xam xamaara bañ dala ko wax bul ca teg baax bu dee مجلس لبو خمنا دنج فاي جوخي اي بند لاو بغا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفصحوا في المجلس فافصحوا يفصح الله لكم واذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات كن اب جوليت ورنا ياو بمانا تان مجالس يوي bu weesoo bii ma jëkk a wax nga xam ne moom daara la dañ fay jàngale xam-xam di fa wan nit aw defiin wu koy dimbale ci jëflanteem ak digganteem ak moroomi jaamam ak digganteem ak boroomam fu mag di dem la boo fa masaan dem da fa fekk mag fekk fa ndaw da fa fekk ku bokk fu nekk sant wu ne daal laa bëgg a wax ak ku ne diwa ko jur ku nekk da ko fa fekk ñu bokk di fa taataan ci kenn walla ci ñenn ñoo xam ne lañuy ñuy dagg la def ca ñoom du weesu nit kiy def ba jariñu ci àdduna ak njariñ loolu buy dem àllaaxira man ko faa dawal mu fekk ko fa bàyyi ko fi it ñu di ko ko mandat gannaaw boog ku ci yàlla dimbale ba mu tàmbali caa am bumi muy na fexe ba sa bu fay jóge mu ngor lu bari yóbbaale ko amna ay melokan euh ku fu yobalé jikko jo xamné gënut nako bàyyi ci buntu bi ta fas jël ci jikko ye nek ci jotaay bobé bu fekkee kako ko joxe moy kako wara joxe ta mat ku seuk danaa ñëw ci hadra waaye jataay bu mel ni bii sallallahu alayhi wa sallam daan tooge ak mag ñi ko wuutu gannaawam moom a tax di gën a wax di laaj ba xam mi ngi am ba tey waaw wala déet jataay boo xam ne dañ toog ba yàgg ñu ne waaw masala sàngam moom lu ci sariya wax tàmbalee laaj ba ca ca kaw loolu bu fekkee mi ngi am itam bëriwut de yóbbu fi barab masala di ko laaj duñ la may sànga wax dañ naan la ku nuyoo na dem ku ñëw na topp ñeneen ñëw waaye ñeneen ñoo ñëw lu ñu fay def gannaaw kii moom gàkk na ci diine gàkk na ci ab jëflante bi diine santaane diggante mag moroomi jàmmam fu ñu gàggante ko bu dul foofa kon bokk majaalis yi mat nay teey bu baax yonent bi sallallahu ma wa sallam nee na woon ku gëm ne yàlla ku am la mo fi jitu mo fi ñepp dañuy dem bayiko fi mu ne fi te du fi joge mukk jurul kenn kenn juru ko nuréewut ak kenn dara sa bo defé ci sam xel mu rëy bané ni la wara mel lolo lo xam la lo lo peeg la fi le tambalé yam fé du yalla ku ko gëmee gëm bis dina ñew mu nat ji fi jaam bu ko mbolo dé ñewal muy borom ba kenn ku ci nekk na la yaatalal ay loxoom may la bëñ bu weex tàll xool la bët bu leer boo xam ne loo ko bëgg a laaj ci diine su fekkee nit diine la mu mën la koo leeralal man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu kooku kañuy fekki moo tax muy wax waaye kay fekkee ji nag am na wàll moom itam mooy ne kott di déglu du def yitteem ci lu dul lam fay roote fas ko yéene yóbbu jariñoo ji ko ci ñi ñuy jariñoo am ndox ndox liñ koy jariñoo naan tuuti la ca mu biir mu binug nit ñoo ànd waaye danga gis ku dem fi barab boo xam ne lii ma wax lañ fay joxe wala boog moom lañ fa war a joxe yitteem jëpp nekkul ci lu dul di filmer nit ñi moom moom jamono boobee koo koy wax moom la muy wax jëlu ko mu ngi seet ku mu war a cadré ci mbooloo mi ku war a jël ak ka topp ca moom ak ka yëkkati loxoom joxoñ ko boppam ngir bu génnee mu mën ko yeewi kooku ak demam ci yooyu majalis amul njariñ waaye bokk na ci sax bokkul sax ci mbañum rus dëgg-dëgg dem fi barab ñu fay joxe lu am njariñ loo xam ne njariñam àdduna lay tàmbalee jëm àllaaxira yitteelu ko lu may ma ngay xool ku mu war a filmer wala ku war a foto kese moo ne danga koy gis sax ci yenn jataay yu ñuy def ci ay jumaa wala أي muxaadaraat li ñu tuddee conférence di ca wax tomb yu am maana yoo xam ne ñi ko xamoon da leen di fàttali ñi ko xam wutoon war caa nga gis ko yërëb jukkeem di jàng kooku lu mu fa wuti wala ñu woote foo xam ne déglu leen ñëpp yi déglu moom mu yërëb jukkeem di napp napp di nga gis làmmiñu mu mel ne lu koy wax dara wala mel kurusam mu fa wuti te moo toog foofa dañ fay joxe te ginnaaw yurut lu mu joxe na toog ba ñu ñëw te bëggut a jël loolu sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem mu yaatuma joxe na ci bind daa mat sëkk ba amul lenn lu ab jullit di soxla ku ko ca fàttali wala ku ko ca soññi te mënoo ca ne yonent bi nee na su fekkee sa gëstu xaw naa xóot tuuti yonent bi sallallahu alayhi toog na bés di nek nit ñu gëna bari mu fasiyene tambalé wax ak ñom am ku ko jox hadiya jaaro bu rafet yonent bi diko ni rek ak a niiraat mu tak ko tekki jublu ci sagal waji rek de ndax léeg-léeg nga jox fi nit lo xamni dara ñuru ko ca waye day sagal ko ko jox rek di won ne ko bëgg na ko te bëgg ko lolu ak lolu lolu du julit deug lu mu du gëm du def mukk lu gëmul sallallahu alayhi wa sallam ba am ñoo xam ne wax nañ te dégg ko mu yëkkati ko mu tekki ko ci yoxoom ci loxoom bu tedd ba yëkkati ko ne shagalani hada ankum ilayhi nazra wa ilaykum nazra li tax li diggu doon wax wala ñee lañ wax dégguma ko kat taman mi lañ bëggoon a waxal lii moo na dox sama diggante gi yéen daan ne ko wur foo xam ne wër nañ ko far mënuñu ko gis bokkut ak nit ñi yu bari ba mu ko nee kenn xamut fu mu dal ku ne bëggoon na koo jël barkeeloo ko waaye seet nañ seet xamuñu fu mu dali mu soog a jublu ci jataay ba kon boog ñi nga xam ne fu ñu dem lañuy ñuy seen yitte mooy filme photo walla koo xam ne ma ngay déyaate wala koo xam ne téléphone yaa ngay car car it na xam ne jataay yenn yi dañ faa war a dem jariñoo ji fa waaye waruñu faa dem di fa wane wenn melokaan wu bokkut ak wañ fa santaane <clears throat> waaye bokk na ci it li moo ta moytu dëgg dëgg dëgg dëgg koo xam ne saa bu ñu fatoo ci jataay fataale la ca biir jataay ba te lu ñu fa waxtaane bu ñu génnee dégg ko te kat day joxe firnde naan maa toog diw toog yaag diw toog ngeen di ñett diw ak diw toog ak yow muy ñett te ñett ñooyu kenn dégg ñaar ñi kenn déggu ko ci ñoom kañ ko dégg ci moom te néewuñ ko na ko déggal ñi ci des kooku nu mu tudd lu mat a bàyyi xel la rawatina nag kenn wurta photo nit walla nga di ko filmer te amoo ci ndigalam ndax jëmmi boppam ci moo ko moom dañ ko ko war a bàyyee day dem sax ba bàyyi ko ci àdduna faatu ñu ne ñu tëral ko mën a ñaw te du tax kenn ñëpp sañ ko filme ndax ba léegi si moomam boppam bàmmeelam ba sax kenn waru ko filmé kenn waru ko filmé ndax bàmmeelam la waaye nañ gën a moytu bu baax ci yenn majalis yi sëgg ci dari nit ñi kenn du femm kenn te kañ ko kañ koy gën a dégtal léeg-léeg lii du majlis waaye xadara la kañ koy gën a dégtal mooy ka fa ñëpp fekki kenn ku ci nekk ma ngay séentu bu fay jóge yawe bu doon naa ko sa waaja nga jëf leen toll de fi mu toll nii ñeena ku dee di wax yu metti yi ko dal bu ne cell rek da caa bég léeg nga dégg ku ca tixit tixit nag boo déggee yenn wolof yi wax ko mooy mag mu réew rek ne ah, yaakaaroon naa ko de walla duma bett de kooku bu doonoon mara démb si bu ko yàlla joxoon ni muy def su ko yàlla joxoon ngelaw li balaa kenn noyyi fay su ko yàlla joxoon ab jis balaa kenn xool fay ko bu ko yàlla joxoon ay ay tànk balaa kenn dem fenn tàgg ko fay ko nu muy demee yaakaar naa ñu bari duñu dem rawati nag di fa jëw jëw moom sunu borom da koo tere ci alquran ne bu bu leen jëwante moo xam yéen a nga ca xadra ba wala yéen nga ca majlis ba kon boog majlis moom fu ñu ko tuddee nañ xam ne fu ñu joxe xam-xam moo tax ñu di ko wax waaye xadara moom moo gën a yaatu ku ne mën naa ñëw lu ne mën na faa ñëw mën nañ fa andi lu nekk waaye ñoom ñëpp lañ ko boole tere bu leen jëwante ñu ne teg mu ne yéen ñi ndax kan moo ci bëgg mbokkam mu ko jege walla xaritam faatu ñu dagg ci yët ko ne ko lekkal ku ko ci bëgg ku ko bëgg ne yëkkati loxoom ñëpp ne pat mu ne fa karihitumoowu ni ngeen ko bañ ni ngeen di bañé dem ca wanawa dara laal la fa wala yaghtab ba'dukum ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu waaye bokk yi ñaar yooyu ñu ngeen di xamé majlis tuduna na ko fi nga xamné mom la worom xam-xam yi di joxé xam-xam momata wutali ku fa dem mu tënku teggin ya ab jataay laaj ne teg di déglu bu fekkee déglu moo ko fa yóbbu bañ faa ngistal yorub téere di wëlbatee ko wëlbatiwaat wala mu bañ yor kurus su fekkee la muy wax mënu ko ñàkk a wax na toog fa muy toog bu fekkee yàllaa tax ba noppi soo ko ñëw déglu si nag ndax fii dañ fi kenn lañ teg ci kaw muy wax ak ñëpp waaye su fekkee ab xadara la nag bu dee majlis la ku cay dem na fexe ba ku mën a yóbbaale yóbbaale la ndax dañ fay rooti te root lu waaye mën a duy rek na ko yóbbaale ku mën a yóbbu nga duyaaleel ko it na la yóbbaale nga duyaaleel ko rawatina nag ndaw ñi rikk nañ leen toqi ci di leen yóbbu ci majaalis yu am njariñ yi yi nga xam ne ña fa nekk bu buñ tëralul ay téere nit ñi it nañ fay waxtaanee lu am njariñ lu tegu ci dëgg te bañ a jëfe bakkan bañ a topp bànneex bañ a topp ragalante ay gannaaw kese waaye bokk yi nañ moytu bu baax moo xam xadara la wala majlis boo xam ne jàngalewuñ fa waaye séentu nañ fa njariñ ñu moytu lool di fa toog ak ñoo xam ne seen bakkan dong lañ topp wala ka fa nekk bakkanam dong lay topp li nit ñi naan diw yow laay topp kooku moom fu bakkanam dugg mu dugg fa bakkanam rek lay topp ndax toogee jataay yu mel noonu day rey ab xol day jural nit ki ëllëg réccu ak perte dafa ne mi ngi baxta dar dara baaxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena jotaay bo xamne tok nañ fa ba jóge fa waxtaanee mu fa yàlla waxtaanee mu fa yunus bi sallallahu alayhi wasallam lamuy la jural nit ñi moy teraataan tera moy lot ëlëk ñëpp pesa do mëna fessal ak ricc gu dul jeex an taqulu nafsun ya hasrata ala ma farratu fi janbillah yàlla ñu ci yàlla musal sëñ bu mag bi nak leralal nañu ko ci yetti bayit yaa daal indi fa mu ko jëlee boo demee ci térim ba bu ñuy wax nahju qadail xaaj mag ña daa nañ wax mag ña ne su ma ko waxee mooy ñi ñi ñu jiitu ña leen jiitu rek ñi leen mag ña seeni mag kuy dem ci majlis boo xam ne tëral tëralu jiw ab téere waaye ka fa nekk xakiim la boo xam lu mu wax téere du ko dindi nako tan bu baax ndax man nako koo yaakaar te dem di fa fekk waxuma la dem ci jotaay ba way ñam ñam ñi àndal di dem rek na len na leen tànn wala tusahib in aradta suxba ذا شفه أو حسد أو رغبة ولا تجالس غير من به تزاد دينا وعقلا أبدا تنال المراد fépp foo xam ne boo fa demee doo fa dolliku ci sa wàllu pas-pasub diine kooku mooy kay jàngale doo fa dolliku ci am xel mu ñaw kooku day yeete ci ay xekkam yoo xam ne benn teeg du ko dindi nee na ñaar yi foo ko mënta am daw ko soo leen dawut doo am la nga bëgg mukk soo ko dee wutali nag foo xam ne sa diine dana fa dolli sa xel mu ñëw dafa dolli ko ndax dañ lay yee waar la foofee mooy barab ba فأخبروا بأنما المرء على دين خليله حديثا نقلا نحن أنا لي مو وخني دلهم وحال بابا ميرك تي تشو بارم باي داف كو جيلي تي حديث يونتبي صلى الله عليه وسلم بيم وخني المرء على دين خليله فلينظر احدكم على من يغالل ولا من يخالل واي امنا فو خمني في تاغنا في يونتبي صلى الله عليه وسلم لول تي جاروم بوبي مو وكي وون ساني نا امنا ني نيو تخ مو جوك وخنا لو خمني ييغوكو ديغوكو boobu nit gaa fa nekk ndax jaaro bu muy nii rek a takk ak a tekki nee na moom dem na ba àgg ci koo xam ne kii lu waay di jàmbat fa moom nga koy jàmbati ndax ku wax dana la déglu àgg na foo xam ne fii ku jooy moo lay moo lay bégal ba nga ree ba nga fàttali tax ngay jooy waaye mooy koo xam ne ki xeebul kenn ci kuy wax ak moom xeebu ca kenn bu doon suñu jamoo tey dañ naan soo ko woowee téléphone sax mën nga ko jot آه، مشكين لشاكين ولا مشكين لشاكي بشر لباكي مزغ لحاكي وذي ندائي تقو كاملة واي امنا فو خمني نانا كتوغك موم دانا فاتل لو دونان استرس موم ndax lamuy dotti ci ay noppam di ko dugal ci xolam munu ko amé fenn dana doy sëkk bu taw sax dugu yëg ndax day defe ne mi ngi ci néeg bu dëll mbooleem lu baax day yëg ni muy dugg ci kawar yaramam yi ni ko ndoxum taw di di di sotti ko waaye nag nee na foofa ñafa fa daan jëm ñoo ñoo yay ndax koo xam ne xar bi boo ko xoolee rek day mel ni ab jant mu da dott yi ñu demee kooku rek a mat a toogal motax mu ne bani duyuri, ma al khuyuri baghi sururi, lil julasai. mom moom bu mag bi nag waxon nak ndaw ñi ta ba bind terem bobu daf ne mag ndaw ko tax juk yobulum ndaw la bo xamne ag gut fu jëm te mi ngi ci yoon wi waye borom be jaw bu dem ba japp ne ag ne su soxla meuna jël su góor gu tollu ci digg doolee mi tollo meuna jël su jigeen soxla meuna jël daf caa bind ne fastaghilu bil hifzi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqaawa kon ginnaaw majlisu shaqaawa am na majlisu saada am na nañ wutale majlisu saada te daw ba faw majalisu shaqaawa rawatina nag jamono ji moom moo ko gën a moo gën a bari mën nañ tudde léegi xadra tudde suñ ko majlis waaye xadra lañ ko tudde kon boog nit ki ginnaaw faw mu wàlli fenn faw mu wuti ñi ngi toogal faw mu wut fi muy toogee ji alxuraan wax na ak moom yonent bi jàngal na ko ko bu ci réew mi sëñ bi bind na ko dama indi yii rek waaye lu baree baree bare la loo xam ne day yee nit ki di ko waar waaye bokk yi majlis mooy lan mooy fu ñuy dem di fekk diw diw moomee day tëralal nit ñi seeni téere dañuy jàng ci diina la ولا دين في القران دين جانغال بلاغ دين جانغال بيان دين جانغال منطق اك فان يي تخ ني مانا جانغ ني مانا خام القران لي واخ فوفو موم داما ني ناخ في ني دغمل ديفا ووتي ديفا فكيه جي دك دك ناخ كو مل نون باريتينا كو خام ني داني كوي سيتي بن غير لي خاولاي رك بو جيغم نيامال كو te ba noppi boo demee léeg-léeg nga fekk mu tiim mbooloo mu bari di leen waxal ay ci téere yi te bu julli jotee mooy jiite te bu problème àdduna wax wax problème àdduna jotee ku ne moom nga koy laaj mu wax lam ca xam ndax mi ngi am su amagut war nañ koo sàkk ndax jamono soxla na ko lool ndax nit ñi dem nañ ba ku wax ñoo ne waraate kese kese te xamuñu ne waraate ba diina jeex waraate la waye nit suñ ko yee xamal ko ne ko lii mi ngi leen di dëgmal yéen a ngi ciy jëm da wara a nangoo yeewu am na ño xam dañoo lànk nangu ñëw yeewu dañ la fatous te ku ne fatuus nanguwut ta yeewu ku yew wut mom bokku ci waxtan ba kon bok nañ moytu bu baax te xamé lan moy majlis ak hadra hadra mom ku ne dana fa dem lu ne man na fa dem waye ba ci gëna mata moytu moy bo xamné dari nit ñi lañ fay nekke moy bo xam dañ fay jëw mooy boo xam ne dañ fay jay kañ fay fekk rek di ko jay mooy jayaxu nga xam ne soo ko newoon tey bu la neexee du taw du ko weddi su ko weddi war dëkk na seet suñu borom bëri buñ ko nee yaatee diw dee ca wéri dem nga daa war ne déedéet du man yàlla waaye daan <laughs> waaw moom day na càll kon nangu na ko te yàlla mooy dundal mooy rey eh, id xaala ibrahima rabbi allazi yuhyi wa yumiit بنمروز تحد دفي سيدنا ابراهيم وواتي كاسو نيار رايكي بايكي مدم لاكو انا اوهي اوميت رايناكي بايناكي مدم لو واخاتي مونوكو يالا مي واخ فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب يالا مي مي واخ موي كيغي خاامني موي جيل جانت بي بينكو بو سوبا اك تشيك سوبا ديكو يوبو كي سوبا با دودو خي تشي سوبي فبوهت الذي كفر كون بوك bu xadara bi xumba xumb bañ bëgg laa jox lu yàlla moom nga di ko nangu soo ko nangu rek dugg nga duggaaleel gaay te ëllëg mën ngaa dem ba defee ne jekk nga bay dànkal dànkali wuti aljanna yàlla gaa yi ne yàlla keekat bu demee danañ ko layoog yow kat lu tax am na lu ñu daan wax ak lu ñu daan wut wax te luñ ko mës a wax rek nangu na ko buñ baree rek yàlla ne waqifuhum innahum mas'ulun wool ñee ñu dikk ndax li dal gars yi ñu leen ko bëgg a teg kat duñu mën a dem bàyyi leen fi ginnaaw ak guñ fa nag nañ teel a layoo fi bala ñoo dem yàlla nu yàlla dafa dégg topp te mosuñu seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin